bu ngeen gisee accélération boobu Yanda numéro 2 Yanda numéro 2 moom ngeen moom ngeen lu bett li Yanda numéro ak kan la. ak jéem bu déggoo songoon nañ di moo waay yow ñu ne yem ni Yanda numéro 2 jàpp na ko jéem bu déggoo moo ngi bañ mu ngi ci ñoŋ ci ñaari xale lañ. ñu yàmbul la eh, ñaari mbir yaa Yanda jàpp ko. Yanda lu mu nar tey de kenn sox baatere <laughs> waaye Yanda lu nar ay dóor ngay Yanda moo koy waaye loolu nga bëgg def nekk pour la jàpp la ce sera très compliqué nga def loolu ñaay Yanda di may dóor a koy puus wala déedéet Yanda jën bu déggoo jën bu déggoo ngi bañ yàlla fu mu jàppoon baax na waaye dafa mel ni jën ah jën si suuf déet jën moytul moytu mu plaqué la bi moo nekk premier combat de la nga bëgg dem baa dina dem. jeen jeen jël na ko baaxee ko déedéet daan naa booti na ko ñoo ngi na oh yaay xale yi waay. dimanche 27 novembre 2022 mu nekk muy combat de la si Diène bu Deggo ak Yanda. Yanda moo nge moo ngeemul Beteli Diène moo nge moo ngeemul weex la di koy xaatim Khalil ñaar ñii ku ma leen jox ma bëre ak ñoom barki si ah, man doomu séeréer la Yanda <laughs> numéro 2 Yanda ak Diène Diène Diène Diène loolu xanaa Diène ah Diène technique yi muy cherché bu xoo jàllee fii toj ah moytul daan daaneel moytul bëgg daan daanu jaan moo ngi suqi da koy na ko ànd ak moom dina na ko ndaw sàmm na kat waaw am na am na daan na Diène Dada Yanda samp na kat waaye xale yi nii moom mën a bëre oh doo daan mu ñal mu ñal mu ñal te xaar bés boo ñëw mu ñal xaasa yaa ngay ñibbi lii nga ko war lam bu daal ñibbi li du yoon da ngay indi